i yau jama'a ya seen tur ak seen sant fu may mën a dali nekka man la seen xarit seen rakasi bu bajaalo fala di leen dali jox lu nga xam ne mooy mbégte ne mooy ñaar fukki fan ak juróom ñetta si weeru mai loolu dali nekka si lu nga xam ne mooy atum di leen dali nuyu fu way mën a dali nekka di leen dali dalal si lu nga xam ne mooy xibaar yu nga xam ne ñu ngi koo dali taataane dali jógee fu nga xam ne mooy biir Gambia walante ay xibaar yu nga xam ne mu dali jógéentoo waaw comme ni ñu ko yeddali baaxoo di def rek ñu nga xam ne ñoo ne dal di jiitu maa yeddali ñaanal yàlla yàlla suuf sera seen kaw yàlla nangu seen sera si kaw suuf ñu nga xam ne ñu ngi dal di feebar maa yeddal di ñaanal yàlla yàlla tam fuga seen bopp ñu dal di wér a jaama ñu nga xam ne yàlla mu leen dal di teg lu nga xam ne muy natu maa ngi dal di ñaanal yàlla yàlla génne leen lu nga xam ne mooy natu bi gaa yi dal di delloo fu nga xam ne mooy seen ñu dal di jugee si lu nga xam ne mooy prison yi ñu dal di delloo si li nga xam ne mooy njaboot wante yow mu nga xam ne yaa ngi dal di déglu ma laa dal di ñaanal lu nga xam ne mooy jaama di la dal di ñaanal lu nga xam ne mooy sa ay famille mu nga xam ne mooy jaama wante wante ba léegi di leen dal di baatale fii fu nga xam ne mooy Gambian Talents Radio na ngeen nekk di dal di déglu si lu nga xam ne mooy website bi si www dot Gambian Talents Radio wala fu nga xam ne ne mooy si uh, mooy Facebook live bi uh, man la seen xarit seen rakase bu bajaalo fa la booy uh, saay suñu ko rek nii nañ ko dee dal di defee Ah, comme ni duñ dal lu dul di leen dal ah, di baalu ahari dal di wax ne tam ah, lii lu nga xam ne mooy weeru koor bu nga xam ne mooy jëf yu baax wala képp lu nga xam ne tam mooy sarax tam yàlla tam dal ñu ko nangal dal di ko nangul di ko dal di jégal tam tam dal ñoo def si jul ji nga xam ne tam jul ji allahumma waaw mbokk yi ba léegi suma machine bi moo xaw a dal wante du ndal li def dara rek ah, du del ndal li ne ah, kii ñu nga xam ne ñooy US embassy bi dal di nekk li nga xam ne mooy US embassy bi daal di nekk foofu si biir Gambie ñoom ñoo dal di firi la ñoom neen xam ne ne woon dal di arrêté woon ñaaka dal di joxe lu nga xam ne mooy visa gannaaw nga xam ne ñoom yaakaar ne ne lii xam ne mooy government ni Adama Barrow ñu ngi dal di ñu ngi ko dal di firndeel wante tam neen dal di gis ne kii tam ku nga xam ne mooy président Adama Barrow moo dal di jéegale jéegale bu nga xam ne moom mu ko doon dal ñu duggee si weeri koor bi ah, dal di jégal lu nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom si lu nga xam ne mooy prison loolu nag dalee nekkoon fu nga xam ne mooy mile two wante prison tam yu nga xam ne tam ñu ngi dalee nekkoon foofu si biir janjam bëree kayit yi xibaar ñu ngi dalli ñu nga xam ne ñu ngi ko dalli jàppee si loxo ñu nga xam ne ñooy freedom radio freedom newspaper si ki nga xam ne mooy pander yi mun noonu dalli jàngale di nguuri Gambia bi wala réewum fu nga xam ne mooy réewum Gambia wante ne tam si semaine mu nga xam ne ne dal nañ koo bàyyeekoo nii si jamono bi ñii ñu nga xam ne ñooy APRC seen militant si tam ku nga xam ne moo ko dalli jiite dalli nekk si tombong jaata moom moom jaata ñoom ñu ngi dal di amoon lu nga xam ne ñu ngi ko doon dal ñu ngi ko doon dal di jëfandikoo ah, foofu si biir Kanilaay loolu di dal di màggal lu nga xam ne mooy juddu ah, juddu ku nga xam ne mooy former président Gambie bi dal di nekk si Cheikh Yahya Jammeh Babli Mansa foofu si biir Kanilaay wante bi léegi itam foofu si biir Burundi ñu ngee dal di firndeel li nga xam ne mooy mooy nguuri Burundi foofu ñu ngee dal di firndeel li nga xam ne mooy góor ak jigéen dikkoo bu nga xam ne ñu ngi koo dal di dikoo ñoom ñu ne jox na lu nga xam ne mooy APA pour ñu dal di arrêté loolu arrêté bu nga xam ne ne war nañ koo dal di arrêté pour ñu dal di mën a wàññi lu nga xam ne mooy ay doom yi nga xam ne ñu ngi ko dee dal di jur foofu wala ñu dal di gis ne daal ku nekk daal lu nga xam ne mooy nekkin wala lu nga xam ne mooy dëkkuwaay bu war a dal si lu nga xam ne mooy réew bi Euh, pour bu dal di réew mi tam dal am lu nga xam ne mooy koom-koom euh, wante tam loolu tam euh, foofu si biir Burundi ñu ngi ko dal di wax leneen tamit biir si lu nga xam ne ne mooy Égypte lii lu nga xam ne mooy militant si ñoo dal di reyoon rey bu nga xam ne dalu naa toll woon si jamono bu nga xam ne mooy xëy di xibaar ñu ngi ko doon dal di firndeel tollu woon na si lu nga xam ne mooy ñaar fukka juróom-ñetti nekk wante ñooy tam lu nga xam ne mooy prix nit yi nga xam ne ñàkkoon neen seen bakken xam ne mooy sports leeroon to ne mbir kii ku nga ne ne mooy xam ne mooy taana bu nga na ko pour Gambie seen seen seen xëccoo bu nga xam ñu nga xam ne ñooy beneen ne leen dal limal nga xam ne tam nga xam ne ñooy sports Space ñoo leen nekk di dal di sponsor si jamono bi ah, ñoom tam neen dal play fu nga xam ne mooy Tanzania ah, dal di nekk njël meenu yoon gars yi dal di faa play wante lu nga xam ne mooy first division bi ak lu nga xam ne mooy second division bi second ah, ba lu nga xam ne mooy first division bi na dal jeex lu nga xam ne muy ëllëg lundi xëccoo bu nga xam ne ne Brikama United na ko dal di ak ñu nga xam ne ne ñooy Armed Forces te loolu tam war a dal nekk si lu Ah, ñeneenti waxtu foofu si biir biir xama ah, box ba mini stadium wante mbokk bi léegi di leen dal di wax ne man la seen xarit seen rakk si Buuba Jallow Fala Boy ah, di leen dal di lu nga xam ne mooy news review ay xibaar yi nga xam ne ñu ngi koo taataanoo dal ko bàyyee fu nga xam ne mooy Africa ay xibaar yu nga xam ne ñu ngi koo daal di taataane daal di koo bàyyi tam fu nga xam ne mooy biir Gambia wante nga xam ne mooy xew-xew boobu tam daal di nga xam ne mooy leen lu nga xam ne mooy njaar juróom xam ne dañ leen daal di arrêt dañ leen dal di charge luwaa dafa dal nga xam ne mooy seen mooy mooy seen kaw lu nga xam ne mooy ay kilifa lu nga xam ne tam ñoom tam amoon neen lu nga xam ne ne dal nañ koo jaarale woon foofu si lu nga xam ne mooy kayiti xibaar yi mbokk ñoom ne lay def dara rek lu dul daldi dugal nga xam ne mooy biir programme bi comme ne ñoo leen ko daldi déggee nga xam ne mooy président Adama Barrow lu nga xam ne mooy ñaar koo defee daldi koo defee si lu nga xam ne mooy yërmande lu nga xam ne mooy weer wu sell bi daldi nekk si weeru Ramadan moom nag ku xam ne mooy président Adama Barrow lu nga xam ne bi daldi nekk fu nga xam ne ne mooy mile two at fu nga xam ne mooy janjam bure nit yu nga xam ne ne daldi nanoo daldi leen faa tëj gaay si lu nga xam ne mooy ay ay anim bu nga xam ne woon anim bu nekk la kii ku nga xam ne mooy président Adama Barrow lu nga xam ne ne mooy constitution ni Gambia bi loxo bu nga xam ne dal na ko jox dal na ko si lu nga xam ne mooy section section 82 si lam dal di jël loolu pour dal di koo dal di koo jarale si ku nga xam ne ne mooy ministre of interior pour dal di woñe ne moom mu nga xam ne mooy Adama Barrow dal di naa jéegale ku nga xam ne ñooy dal di toll si lu nga xam ne mooy ñaar fukka ak juróomi prison ñoom nag seen tur nag dal di nekk si ku nga xam ne mooy Lamin Kany kii ku nga xam ne mooy Alassane Seydi Kane daanaka noonu Xaadim Faye Xaadim Dramé daanaka noonu ku nga xam ne mooy Bala Suso Baboucar Sow Abdoulaye Dia Abdoulaye Lo ah, ku nga xam ne mooy Abdoulaye Diba Youssoufa Diayte Ibrahima Diallo ñetti góor ñu nga xam ne dañu noonu tural si ku nga xam ne mooy Ibrahima Diaye Ibrahima Diallo daanaka noonu ku nga xam ne mooy Serif Sy Souleymane Seydi Yaya Jambang ku nga xam ne mooy Ibrahima Jammeh ah, ak ku nga xam ne mooy ñaari Ibrahima Jammeh ak ku nga xam ne mooy Modou Jiba Adama Abdou Konte Youssoufa Tunkara Doudou Gaye Landing Jarama ak ku nga xam ne mooy Ndiaga Ndiaye daanaka noonu tam boole na si ñi nga xam ne dalee na noo jéegal euh, ku nga xam ne mooy président Adama Barrow euh, boole na si ku nga xam ne mooy Omar Diallo am Amdi Sow ak ku nga xam ne mooy Modou Lamine Dali ak ku nga xam ne mooy Bala M Konaté Euh, lii nag mu ngi dal di xewoon si lu nga xam ne mooy ajuma bi euh, gannaaw la gannaaw bu nga xam ne tam prisonniers yooyu ñoom euh, ñu ngi dal di firndeel si jamono bi ñoom ñu ngi dal di delluwaat seen lu ngeen xam ne dal di delluwaat seen lu ngeen xam ne mooy ay andu jaama bi léegi tam kii ku nga xam ne mooy Anthony General bi daal di nekk si justice xam ne ba Tambiru ah, moom noonu dala yëgal lu nga xam ne mooy kayiti xibaar yi foofu si biir Gambie wala si biir àdduna bi moom dali naa joxe lu nga xam ne mooy ndigal wala lu nga xam ne mooy nguuri Gambie bi dali naa joxe ah, lu nga xam ne ñu mooy ndigal pour ñu ah, koo teg loxo si lu nga xam ne mooy bagage yi Yaya Jammeh wala ay companies yu nga xam ne ne woon mu ngi dal di nekkoon si loxo ku nga xam ne ne mooy loxo Yaya Jammeh kon nag gannaaw bu ñu ko dal di gannaaw bu ñu ko dal di tombalee nag ñu ngi dal di ñu ngi dal di ne lu nga toll si téeméer ak fanweer ak benn si kalama an nasara dali nekk euh, lu nga xam ne ne mooy ay kër euh, mu ngi dali nekkoon si lu nga xam ne mooy turi euh, lu xam ne mooy yaayaa jame woo ba tam dali naa tam lu nga xam ne ne mooy 88 bank accounts yu nga xam ne dañ dal di utee wala tam dali naa nekk tam lu nga xam ne mooy fotti fukkaa ñeneenti companies ak lu nga xam ne tam ay ay lu nga xam ne tam mooy ay ay ay chama lu nga xam ne mooy ay béy wala ay xar wala ay nag ah, loolu tam wax na ne tam ah, loolu tam nekkoon na si lu nga xam ne ne si loxo yaay jëmale kon lu nga xam ne mooy nguuri Adama Barrow dal di koo jaarale si ku nga xam ne mooy Anthony général bi dal di nekk si justice minister ah, ba Tambidou ñoo dal di jël lu nga xam ne mooy arrêté dal di ko teg si lu nga xam ne mooy bagage Yaya Jammeh wala lu nga xam ne mooy ay rabami daanaka noonu tam si lu nga xam ne mooy ay bank statement nu leen ko dali waxee woon ñu ko dali jàppee si ku nga xamné moy Pandori mbay dali nek ci Freedom Radio Freedom Newspaper mom mu ngi dali firnde ne kii ku nga xamné né moy euh, foreign euh, minister bi dali nek ci euh, lawyer Ousainou Darboe at ak ki ku nga xamné moy Lantom Mbong ñom harit leen ba pratam ñu ngi ay xibaar yi nga xamné mu ngi dali ko mu ngi dali rouso fu nga xamné moy soufi gamia ñu ngi dali firnde ne ki nga xamné moy Lantom mom fofu ci dali nek ci bor office foreign minister bi si yoon yu bare bare bare té lolu tam ñu ngi dali firnde kon dafa dali mu kii ku nga xam ne mooy lan Lantombong Tamba ni nga ko dal di jëlaat daldi koo ilifaat daldi koo boolewaat si lu nga xam ne ne mooy nguuri eh, nguuri Gambie bi si jamono bii ki nag ku nga xam ne mooy pandari nag wala ku nga xam ne mu ngi daal di jàpp mu ngi na ko óolu daal di na am lu nga xam ne ne mooy yaakaar la yaakaar la si moom kon mbir bi lu si daal di des rek mooy ne moom ñu daal di koo fal ñu daal di koo élif pour bu daal di dalloo daal di dolluwaat si pour bu daal di liggéeyaat fu nga xam xam ne ne euh, mooy euh, Gambian government bi mbokk ñoo leen ko dal di won lek rek li nga xamné né ñoy mbotay APRC ñoy dal di nekk APRC militant ci ñom ñoo dal li ñom ñoo dal li manko won dal li demoon fu nga xamné ne mooy kanilay té ñu ngi dal li firnele ay jëne jëne ñoo dal li tassé won fu fu nga xamné moy wala li weekend dal li nekkoon lu nga xamné moy grand festival foofu dal di nekkoon foofu ci bir kanilay kanilay nag dal di nekkoon si kër dal di nekkoon ci gox bu nga xamné né président Yaya Jammeh lam dal di foofu lam dal di nekkoon magal mi nak gannaaw bu nga xamné ñu doon dal di màggal lu nga xam ne mooy bési juddóom màggal bi tam bokkoon na si màggal bu nga xam ne ne ah, ñu doon dal di màggal ay fol yi nga xam ne ne juróomi ah, parlement yi nga xam ne ne fol nañ ko dal di bàyyeekoo fu nga xam ne may fooñ yi moo koy leen dal di bàttale ba léegi fu nga xam ne mooy Gambian Talents bu wajaalo fala nga xam ne mooy suufi Gambia wala fu nga xam ne mooy suufi Africa bi léegi tam ñu ngi dal di waxtaane lu nga xam ne mooy kii nga xam ne mooy président Yaya woon foofu si biir kanilaay di dal di lu nga xam ne mooy bési judoom wante tam di dal di lu nga xam ne mooy juróomi parlement yi nga xam ne ne dañ leen dal di fal dal fu nga フォニー mbir bi nak ñuko dal li ma ñu ko dali nak waxone ne mbir bi dal naa nekkoon mbir bu daw yaram won jamono bu nga xam won cultural troops yi nga xam moy ay troops yi nga xam ñu ngi li yëngu si lu nga xam moy ada ñu nga xam ñu leen dal li roñé si lu nga xam moy biya biya at lu nga xam moy musician ki tam ku nga xam moy dudu man ñu bari dali ko roñé si ku nga moy nancho samba suso mu fa won gëna mu nga xam ñu ñu dal li magal lu nga xam ne moy juru president yaaya jame gëna bu nga xam sa sax moom si bopam ku nga xam moy mooy mansa dali fonona fonona lu nga xam moy teewee te ñu ngi doon dal di na ñu ngi fa dal di teewe woon ñu ñu nekkoon lu nga xam ne mooy sabota si APRC ñu fa dal di woon ñu nga xam ne ne woon seen ay rongoñ seen ay seen ay daw yaram ah, mënoon tan a téye seen boppa ñu dal di ñuy dal di jooy gannaaw bi nga xam ne ne woon gébal yaan doon dal di woy kii ku nga xam ne mooy président yi ah, mooy ah, former président yi dal di nekk si Babili Mansa Euh, kii nag ku nga xam ne mooy Ansoumana Jammeh nag dal di nekk euh, dal di nekk raka wala dal di nekk maxi ku nga xam ne ne mooy former président bi si Yaya Jammeh moom nag ñu gisoon nañ ko mun doon dal di jooy gannaaw mu nga xam ne mun doon dal di bàyyeekoo lu nga xam ne mooy mbootaay bi ñu ngi dal di nag lu nga xam ne mooy ñaar fukki local musician ak lu nga xam ne mooy cultural groups ñoo fa dale teewoon si lu nga xam ne ne ah, mooy suufi kanilaay foofu di dal di bégal lu nga xam ne mooy ay sabotage ah, gannaaw bi nga xam ne tam ñun doon dal di maagal lu nga xam ne mooy national ah, assembly members ñu nga xam ne ne dal nañu noo forgaay si lu nga xam ne mooy parlement bi dal di bàyyeekoo fu nga xam ne mooy tondi fooñ yi kii nag ku nga xam ne mu noon dal di wax a taskati xibaar yi dal di nekk si Ansoumana Jammeh dal di nekkoon euh, former ambassadeur dal di demoon fu nga xam ne mooy réewi Qatar euh, moom nag mu doon dal di wax ne nag lii lu nga xam ne mooy jotaay bii nag dal di naa nekkoon si lu nga xam ne lu xarañ la woon euh, mu ne tam loolu mu ngi koo dal di seetale ba léegi tam gannaaw ne kii ku nga xam ne mooy Babili Mansa dal di ta nekkee fu nga xam ne mooy suufi Gambia wante ba léegi tam nit yaa ngi dal di am cofeel ñu dal di am nit yaa ngi dal di am cofeel si moom kon moom dal di naa yaakaar ne moom ku nga xam ne mooy Ansoumana Jammeh mu ne kon bés bi woon bés bi romboon na si lu nga xam ne mooy jaamaa ah, mu ne tam ah, mu ne tam foo mën a dal di nekkoon lekk foo dal di tegoon sa tànk lekk ni nga dal di gis nekk wala foo dal di foo dal di jublu lekk ah, ni nga dal di gisoon ni nga desoon dal di gisoon nekk kon mu ne mu ne kon moon bés bi bés la mu nga xam ne ni dañ ko dee dal di yëglal ku nga xam ne mooy pres may former président Yaya Jammeh si jamono bii. ba legi nak ku nga xamne moy mooy Ansoumana Jammeh nag mu ngi dal di sant di dal di gërëm ñu nga xamne ñoy APRC militancy pour dal di woné seen lu nga xamne moy mooy wala dal di woné seen lu nga xamne moy mooy ci lu nga xamne moy former president bi tam di leen dal di wax ni ñom legi tam lu nga xamne moy parti APRC bi na dal di dellu fu nga xamne fu nañ la dal di nekkoon si jamono bi ki nak ku nga xamne moy dudu dal di nekk ci Nancio mom nak mu doon dal di wax ni mu doon dal li mu doon dal di jaarale ci lu nga xamne moy xibaar yi di dal di woné lu nga xamne moy am solo nga xam ne mooy jotaay yu nga xam ne ne am nañ ko ah, moom nga xam ne mooy Duudu ah, Maane daal ñu bari daal di ko ràññee si nanciwu ah, moom wax ne rek moom daf dee daal di faraloon di daal di ñëw fu nga xam ne mooy kanilay pour bu daal di bu daal di def lu nga xam ne mooy ay fo di bi galaano di ba jamono yu nga xam ne ne mooy jàmmee eh, mu fa woon wante tam jàmme tam su fa daal di nekkutee tam ba léegi tam moom na daal di ñëwee na dal di waat wante teeweewaat mu nga xam ne tam na ko dal di jox lu nga xam ne mooy aham Ah, moom tam ba léegi tam mu nga xam ne mooy Nacho tam mu ne soo ko naa dali naa dali naa tiga eh, tiga bu nga xam ne ne géej naa ko tiga bu nga lu nga xam ne mooy Yaya Jammeh loolu ah, suma lu nga xam ne mooy taxawaay ak ah, lu nga xam ne mooy diggu si lu nga xam ne mooy APRC wala suma taxawaay di daldi delloo kii lu nga xam ne mooy njukkaal li nga xam ne mooy njukkal mooy former président bi eh, Babili Mansa mu ne soo ko dali xoolee mu ne artiste yi dali nanoo bàyyi ko ay fannaa yu bëree bëree bëri pour dal di ñëw fii euh, pour dal di woon euh, lu nga xam ne mooy yaayaa Jammeh lu nga xam ne ni nga ko dal di bëgga euh, mu ne lu baree baree bari nekkul de yëngute lu nga xam ne mooy xaalis moo ko dee dal di def wante yëngute lu nga xam ne tam mooy kóolo mooy kóoloree mbokk yi ñu dal di def dara rek lu du dal di ñëwaat nañ dal di delluwaat si lu nga xam ne mooy xew-xew bi nga xam ne ne xewoon na woon foofu si biir Faarato nañ fa dal di ñëwaat lu nga xam ne ne mooy luwaa yu nga xam ne ne dal naa daanu si seen kaw dal di dal di dal di jël dal di arrêté lu nga xam ne mooy juróom-ñaari ndaw ñu de loxo dal di noonu luwaa dal di teg seen loxo bu ñu dal di def dara rek lu du dal di doxantu fu nga xam ne mooy suufi Burundi foofu dal di nekk si biir East Africa ñoom ñu nga xam ne mooy suufi seen président bi dal di ci euh, seen président bi euh, mu ngee dal di wax ne ne moom euh, dafa dal di aaye lu nga xam ne mooy dikkoo wala lu nga xamne moy fat lu nga xamne moy mooy ak jigen dal di diko dal di dal di dal di diko dal di ñaka a lu nga xamne moy sey mu ne nak lolu lu ko lu nga xamne ne campagne boobu nak lu mu si dal di sentu mooy ne lu nga xamne moy moy sen society bi bu dal ne nekk society bu nga xamne dafa dal di lew wala society bu nga xamne dafa dal di dafa dal di sela li nak mom nak ñu ko dal di ci ku nga xamne moy government spokesman bi ñom ñu dal di wax ne ñom ñan dal di duga pax be pax wala nek be nek ñu dal di bay xel lu nga xam xam ne mooy dëkkoo yu nga xam ne ñu ngi ko daldi tafoo daanaka ne mooy góor ak jigéen yi nga xam ne ne sëyum pour loolu ñu daldi ko arrêté parce que ñoom ñu ngi daldi jàngaate ba léegi ne xale yu ndaw yu baree bari lu nga xam ne mooy école ñu lu nga xam ne mooy ay tam lu nga xam daldi jël seen lu nga xam ne mooy seen seen seen seen seen pour daldi gis ne lu nga xam ne mooy jigéen itam ñu dale noonu daldi bàyyi lu nga xam ne mooy xel wala tam ñu daldi jël jigéen itam dale noonu kër ah, ñii nag ñu nga xam ne ñooy buru ah, ñu ngi ñi nga xam ne ñooy Burundi nag ñu ngi dalee nekk si lu nga xam ne mooy crisis ah, depuis jamono bu nga xam ne ne mooy 2015 gannaaw bu nga xam ne ne moom ku nga xam ne mooy président bi moom dafa dalee nekkaat born again moom nag mu ngi mën a dal di gis lu nga xam ne mooy dikka bi dal di am lu nga xam ne mooy seela lii lu nga xam ne mooy christian lu nga xam ne lam dal di jàngale lu nga xam ne lam dal di nampale ñu dal di koo ñu dal di koo defal lu ne lu nga xam ne mooy seela wante ñu bari ñu nga xam ne ngi biir dal nekk foofu si biir Burundi ñoom ñu ngee dal di firle ne mooy dikka bi am na am na lu nga xam ne mooy ñaaka ñaaka bu nga xam ne ne tax na ne ñoom mënut a dal di am lu nga xam ne mooy soxla amul mënut a daal di am lu nga xam ne mooy soxna walante a daal di am lu xam ne mooy famille wante moo def dara rek du daal di delluwaat si lu nga xam ne mooy arrêté bu nga xam ne ne woon waxoon nañ ko woon dañ ko daal di arrêté xam ne mooy président Yaya former président yi Gambie bi daal nekk si baabi ne Mansa lu nga xam ne mooy ay këram lu nga xam ne mooy ay business am lu nga xam ne mooy ay ay ay tundaam wala lu nga xam ne mooy ay different bank accounts yi nga xam ne ne kii ku nga xam ne mooy ba Tambiro daal di na see teg lu nga xam ne mooy loxo si jamono bii pending the outcome of the investigation. So uh, for the land, I suppose they would uh, register a caveat or something similar which would prevent that land from being sold. For the companies, they would appoint a receiver or liquidator to be in charge of the company assets and manage the company so that their trading companies, that person would uh, continue to trade to ensure that they don't depreciate or they don't lose value until the outcome of the investigation. Now, at that point, if the government wants to seize the assets, sell the assets, or sue Jame or his companies, those assets, those companies would be available to answer the case or, or seizure. So um, the purpose of the freeze order is to basically protect the assets and protect the companies pending whatever decision the government wants to take. Which means shops, for example, bakeries associated with Jamme, owned by Jamme, can continue operation. Yes, they can continue to, to, to, to operate, to buy and sell so that the value doesn't go down and the value remains. At this point, Kimchi is suspected of having stolen or remitted so much money out of the country. I think it's a sensible way to, to go so that um, you know, if he is found innocent, no harm. If he is found guilty, the opportunity would not have been there to um, further, or to disappear his disaster. Mm. But until the completion of that investigation or those investigations, where will the money go by law? Uh, it will remain in the bank account. Now, the receiver, the person appointed to um, protect these assets, would also have access to all the bank accounts and would be the signatory. So um, the, the bank account would not be able to remit funds to Zambia, for example, in Guinea or, or wherever. mbokk bi léegi dinañ dal di baatale fii fu nga xam ne mooy Gambian Talents Gambian Radio ñu nga nekk dal di déglu Anna Seyman seen xarit seen brokasi bu ba fala booy uh, lu nga xam ne ne uh, lu nga xam ne ne lu nga xam ne news review saa su nekk nekk lu nga xam ne dimanche nii nañ ko dee daldi defee di leen daldi isil ay xibaar yu nga xam ne mu ngi daldi ruusoo fu nga xam ne mooy Gambia wala ay xibaar yu nga xam ne mu ngi daldi paataane fu nga xam ne mooy biir Africa stateland area and a designated land area when developed with compounds mounting up to 2000 compounds cannot be taught by anybody because when you talk of a designated state land area it means ownership is by the state the government and when it's developed and people start paying rent, after years of 15, 18 years, nobody can challenge that place. Man, my compound is not touched, it's not demolished. But if somebody else's compound is demolished, I will feel it as if mine is demolished because we are neighbors. And this is an action that uh, Israel didn't do to Palestine. This is an action that South African whites did not do to South African blacks during the apartheid time a place that's already developed up to 2,000 to 3,000 compounds. Recent settlers coming from villages in the country trying to shake hands and come with the highest level of falsehood to demolish up to 2 to 3,000 compounds with support of some bandits is illegal. And uh, Almighty Allah is aware of everything. The former government, nothing like this happened. They, they would not attend to that because we knew the man was talking about the city-state status of the Gambia. That compound will connect and villages will connect and the Gambia will become a city-state. During his time, nobody will demolish. So if elections are done and somebody wins, I think that person should also be aware of the importance of his leadership as president with his government to avoid illegal activities by intruders and usurpers. mbokk yi ñu ko dali dali déggandoor loolu daal di nekkoon lu nga xam ne ne mooy gerew bu nga xam ne xam ne mooy biir faaraatoo ñu dal di ne ne mooy juróom-ñaari ndaw dañ dal di arrest dañ la luwaa dal di ngeen xam ne mooy mooy seen loxo lii nag ñu nga xam ne ñooy police nag ñoo dal di arrest lu nga xam yóbbu fu nga xam ne mooy biir kama magistrate court ñooñu nag ñu dal di doonoo ñu dal di doonoo lu nga xam ne ne pour dal yaaxa lu nga xam ne mooy ay bagage dal li assault lu nga xam ay police officers wante tam dal li dal di dal di jànkuwante lu nga xam ne mooy ay police yu nga xam ne ñu ngi dal seen seen yoon pour ñu dal di pour ñu dal di ñaari ndaw yooyu itam ñu leen dal di caaj caaj bu nga ne mu nekk si lu nga xam ne dal di isi lu nga xam ne mooy ay gerew wala dal di yaaxal xam ne mooy ay machine si jamono bii kii nag ku nga xam ne mooy seen police seen spokesman bi ne mooy inspecteur Fodé Konta moom mu ngi dal di wax ne lu nga xam ne ne mooy ndaw yooyu leen dal di yóbbu si lu nga xam ne mooy ay mooy mooy koot si lu nga xam ne mooy ñeneenti waxtu si lu nga xam ne mooy alarba ah, wante ne waxtu bi jamono boobu moom mënutoon la dal di jeex ah, loolu moo tax ñu dal di aj lu nga xam ne mooy kees bi ñu dal ko aj lu nga xam ne mooy ëllëg londi si lu nga xam ne mooy ñaar fukki fan ak juróom ñeneen ah, si weeru mai si jamono bii bi léegi nag ñu ngi dal di firnde ñu nga xam ne mooy ndaw yooyu dal nekk si juróom-ñaari ndaw ñoom ñoo dal di jël si lu nga xam ne mooy biir faaraato si lu nga xam ne mooy talaata pour dal di dal di yaaxa yaaxa bu nga xam ne pour dal di yaaxa yaaxa bu nga xam ne woon physical planet ñoo dal di ñëwoon si loxo ñu nga xam ne si si ndigale lu nga xam ne mooy minister of youth ñu dal di lu nga xam ne mooy ay police ñoom ñoo dal di yaaxoon lu nga xam ne mooy ay kër fu nga xam ne mooy faraatoo dal di dem fu nga xam ne mooy boori baa fulootoo moo tax nag lu nga xam ne mooy team bu nga xam ne ne woon minister of works ñëwoon nen si lu nga xam ne mooy team team boobu ñoom dañ dal di waxoon ne lu nga xam ne mooy

not only for Dr. Tedros and his country, but also for the entire continent. WHO, has the global custodian of public health, <laughs> moo koy ba léegi lu nga xam ne mooy biir Égypte dal di nekk fu nga xam ne mooy biir Cairo ñoo dal di firnde ne lu nga xam ne mooy juróom-ñaar juróom ne ne woon mooy gonman xam ne mooy bal bal yu nga ko ne ñu ngi ko dal di tënk nga xam ne mooy terror attaque si jamono yooyu mooy fukki nit dal di nekk si ay bandi ñoo dal di masko seen lu nga xam ne mooy xarkanam bi dal di am lu nga xam ne mooy four wheel drive ah, ñoom ñoo dal di ñëwoon ah, fu nga xam ne si yoon yoon bu nga xam ne mu ngi nekka di nekk si desaati ah, Égypte bi foofu si jamono boobu te ku nga xam ne mooy eh, Egyptian Interior Ministry bi moo ko doon dal di jotale ñu nga xam ne ñooy CNN mu ne gannaaw loolu rek gannaaw lu nga xam ne mooy xew-xew bi dal dina am ñu tam ñi nga xam ne ñooy Egypte ñoom tam dal jël lu nga xam ne ay air strikes daldi ko yóbbu daldi ko jubale si lu nga xam ne mooy terrorist camps yi terrorist camps yi nga xam ne ñu si daldi nekk foofu si biir Libya gannaaw mu nga xam ne tam ñi nga xam ne ñooy christians ñu dal daldi tukkee lu nga xam ne mooy ajuma bi daldi bàyyeekoo fu nga xam ne ne mooy story pour daldi fu nga xam ne Saint Samuel pour lu nga xam ne ne woon daldi nekkoon si lu nga xam ne mooy fête te loolu nag gisoon ne nag ñu bari see ñàkk seen lu nga xam ne mooy bakkeen ah, jamono bu nga xam ne woon si mooy aaju may woon ñu doon dal li firnde la lu nga xam ne mooy ñaar fukk ak ñetta ñoo dal di ñoo si dal di gaañow ah, lu nga xam ne tam ñu baree bari ñu ngi dal di nekk si si si anikaanam ah, bu nga xam ne ne miite na bu loola loola lool dal di ko boole ay góor dal di ko boole ay jigéen wante tam dal di ko boole tam lu nga xam ne tam mooy ay xale loolu la ñu nga xam ne ne mooy Egyptian inti militaire bi dal di jaarale si ku nga xam ne ne mooy si ku nga xam ne ne mooy CNN News Paper wala CNN euh, Media ah mako ñu dalé def dara rek du dalé sport comme ñu mëne ko dalé waxé ñu nga xamné ñoy Everton ñom ñoo dalé nek jël bentali team fofu ci biir England dalé wara dalé play fu nga xamné moy Tanzania lolu nak na dalé nek ci tam ci tambalé bu nga xamné moy precision season match bi nak na dalé play fu nga xamné moy Dar es Salaam National Stadium lu nga xamné moy fukki fan ak ñita fukki fan ak ñita ci bérum July ñom nak nañ dalé play lu nga xamné moy Cup bu s, ñu nga xamné ñu ko dalé toor ñu ko dalé touré ci lu nga xamné moy Sport Special Super Cup Ah, lu nga xam ne na daal di eh, eh, teams yi nga xam ne ne mooy ñeneenti teams ah, ne daal di bàyyeekoo fu nga xam ne mooy Premier League wala eh, ah, bi wala tam fu nga xam ne tam mooy Tanzania top flight bi lii nag lu ko dal di sabab nga xam ne mooy Kenya seen seen Kenya seen betting company bi daal di nekk suñu nga xam ne ñooy Sports Pesa ñoom ñoo daal di sponsor ñoo daal di nekk official sponsor ñu nga xam ne ne ñooy Everton

dal di fir ni fa dal di ah, lu nga xam ne mooy suma xarit suma ra suma mag mu nga xam ne mooy Elisabeth dal di dugal lu nga xam ne mooy loxoom ah, pour ñu dal gis ne tam lu nga xam ne mooy maaj boobu ah, Gambie yëpp ñu koo dal di déglu yéen tam ñi nga xam ne yaa ngi nekk dal di si bitim réew mu ngeen koo dal di si lu nga xam ne mooy tune in wante ñu nga xam ne ñu ngi dal di nekk biir Gambia mu ñoo ñoo dal di fu nga xam ne mooy Star FM 96 point 96.6 ëllëg lu ko dali tàmbalee si lu nga xam ne mooy ñeneenti waxtu nu mu ne ko dali bi diggante lu nga xam ne mooy Gambia beneen kii ku nga xam ne mooy Sangdong dali naa tànn ñaar fukki ñaar fukki players ak ñeneen loolu nag war a dal dem fu nga xam ne mooy biir beneen loolu lu nga xam ne mooy fukki fan at benn si weerum juin players nag ñu nga xam ne nag one nag nee nañ ko dali limal kii ku nga xam ne mooy Modou Diop dali nekk si tollu dali play fu nga xam ne mooy Linger, babu ah, Babacar Babacar Gueye dale bàyyi ko fu nga xamné moy jamané ki ko nga xamné moy mooy Alaaji dalé dale fu nga xamné moy Royal de Banjul kii ku nga xamné moy Dawda Ngom nga xamné moy Simon Richard bokk na ci ku nga xamné moy Pamodo Diagne dale plé fu nga xamné moy Sion bokk ah, John Bass Birkama United bokk na ci Mamadou Danso ah, dale nekk Mamadou Foti Danso mom tam buwasananya ci Bouba Sane ñu ko ci Timba bokk Omar Koli dale nek Captain bi dal di bàyyeekoo fu nga xam ne mooy Dieng bokk na fa Mas Menga dal di Mas Manga dal di play fu nga xam ne mooy Hawks bokk na fa kii si midfield si nag ku nga xam ne mooy sol Solmar dal di play Granada seen biir sadi bokk na fa Grégory Sambu Port Authority bokk na fa Tidiane Diaité mu ngi fa Hamza Barry Alassane Mané Barcelona seen under 19 bi Modou Seka Baro Moustapha ko nga xam ne mooy Boli Dramé Sini Sambu ah, si forward si nag gis ku nga xam ne mooy Youssoufa Ndiaye ak ki tam ku nga xam ne mooy Ali Sow daal di nekk njëlbéen yoon gannaaw jibi jamono mu nga xam ne woon atum 2014 gannaaw bu nga xam ne dafa di amoon lu nga xam ne injury wante tam gis nañ si tam ku nga xam ne Lamine Diallo daal di bàyyi fu nga xam ne mooy Italie na tam ku nga xam ne fans favorite daal di nekk ku nga xam ne Steve Tarawale mbokk du daal di def dara rek du leen daal di sant di leen daal di gërëm seen lu ngeen xam ne déglu bu rafet bu nga xam ne ne ngeen di ko di am fu nga xam ne Gambian Talents Radio ba léegi di leen daal di balal aha di leen daal di balalu aha di leen wàññi la won sen xarit sen rokasi bu wajaara fa la booy mu non dal li isil ay xibaar yi nga xamne mu non dal li rousseau fu nga xamne moy soufi gambia wala ay xibaar yi nga xamne mu non dal li rousseau su nga xamne moy soufi africa te ci bir ci bir ran obbi nak de nga fi nak lu nga xamne moy us embassy bi li nek fo ci bir soufi gambia ñom ñu ngi dali firina ñom ne li ikati lu nga xamne moy moy ban mu nga xamne won tegon nañ ko si nguuri government bi nguuri gambia bi sen li nga xamne moy ay officials wala sen ay nik yu nga xamne mu non dal li tukki gannaaw mu nga xamne ñu gambia gambia dal li ñaka ay dal li nango ñu dali di diport lu nga xam ne mooy ñaari junne Gambians ñi nga xam ne ñu ngi dal di nekk foofu si biir America wante nag ñu ngi dal di fi ñu ne kii ku nga xam ne mooy président Adama Barrow euh, moo dal di. suufandiku ci lu xam ne mooy constitution yi Gambie bi dal di baalal euh, lu nga xam ne mooy juróom-ñaar juróom juróomi prisonniers yu ko dal di bàyyeekoo fu nga xam ne mooy mile mile two ak fu nga xam ne mooy janjam buree loolu dal di ko tënk ci lu nga xam ne mooy yërmande weeri koor wante na tam ñii ñi nga xam ne ñooy freedom newspaper freedom radio ñu ngee dal di firnde ne ñoom ah, ah, ñu ngee dal di jàngate si ku nga xam ne mooy lan tombong tamba ah, mu ngi dal di nekk si yoon pour dal di delluwaat si lu nga xam ne mooy liggéey wante tam si biir xibaar itam si lu nga xam ne mooy semaine bu dal di bàyyeekoo nii gisoon ne ñu nga xam ne ñooy APRC supporters ñu ngi dal di tase woon fu nga xam ne mooy kanilaay dal di ko boole seen ay musicians ay cultural groups ah, di dal di màggaloon kii lu nga xam ne mooy juddu Yaya Jammeh wala di dal di màggaloon tam lu nga xam ne ne mooy seen ay parlements ñi nga xam ne MPs ñi nga xam ne dañ leen dal di fal ah, fal ñu dal di ñu dal di fol yi nga xam ne dal na ko bàyyeekoo fu nga xam ne mooy biir foo ñuy wontañu ñu ngee dal di fileen nga xam ne ñooy président wax naa ne nga xam mooy dëkkaw góor a jigéen loolu daf ko dal di arrêté wala tam ba léegi tam ñu nga xam ne ñooy Égypte ne mooy ay militant si dal di soxi si kaw bal dal di nekk si ay christians ñi nga lool bu baax a baax baax a baax wante xam ne ñooy Banjul United ñoo dal di su lu nga xam ne mooy second division dal dem ci first division bi wonta nag ñu ngi dal fi ñu nga xamne ñoy Everton dal fa na dal nekk seen menti yoon ah, pour dal li tukki ah, dal li dem ah, fu nga xamne ne daal di tukki fu nga xam ne ne mooy mooy mooy Tanzania foofu si biir East Africa pour daal di jënkuwante ay team su nga xam bàyyeekoo si Kenya nga xam ne ne mooy Tanzania wante kii ku nga xam ne mooy Sangdong moo daal nga xam ne mooy tiimam bi pour xam ne war nañoo daal di xëccoo si lu nga xam ne ñu ngi ko daal di tënka si African Cup of Nations diggante Gambie diggante Benin ak Gambia wala daal di nekk si fukki fan ak benn te loolu gis nañ fa kii ku nga xam ne mooy Alassane Mané gis nañ fa kii ku nga xam ne mooy Ali Sow daal di jël daal di ñëw si lu nga xam ne mooy squad bi squad bi nga xam ne yaakaar na ne si fan yi rek war nañoo dal di génna dal di dem fu nga xam ne mooy Ghana wala ñoo dal di mbota fu nga xam ne mooy biir benn wañu di leen dal di bàttale tam nga xam ne mooy diggante match bu nga boobu nag dal di nekk lu nga xam ne mooy ëllëg te loolu nag nag li nga xam ne mooy Star FM ni nga xam ne mooy rajo bi te kii tam ku nga xam ne mooy Alaaji Biri Biri Njaay na fa dal di nekk kon kooke mën naa dali sonta di leen dali gërëm di leen dali wala ñuy indoo jàmm jërë ngeen jëf si seen déglu bu rafet